te ngeen jëf mbokki wasaare ñoo ngi leen di di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàcci waaye tey nag ñoo ngi fii ak ki nga xamante ni mooy Amaneex ñu bàyyi ko mu nuyoo biir bàññi boobu fekk si fi ki xamante ni mooy Quench Amaneex ñëw ñu bëgg waxtaan ak moom ci kay bëgg waxtaan moom tuuti rek ci làmb Amaneex na naa maa ngi lay fay ku baax ki di sant yàlla julli julli si yërante bi salaam salaam di sant sama waajur sant waa mbokku lébu yëpp sant ñëpp waa mais ama neex ñu gëj laa gis ñu gis na sa combat dafay xaw a durer tuuti bépp bi nga bëree ba léegi kenn déggaatu la ñoo ngi lay gis yaa ngi génn def sorti mais est ce que boobaa ak léegi ñoo ngi gis ñoo ngi tas xale yaa ngi bëree di daan boobu ba léegi yaa ngi toog di xaar affaire fan la soog. non man am naa combat maa Lac Rose moo gét moo ko tëgg. mais suñu combat amul date amoon na date le 22 août. foofu ñu renvoyé ko Covid bi ñëw ñu renvoyé ko mais ñu ngi si mais bu ma gisee beneen avance tamit ñu boole ma beneen adversaire sama staff di boobu moom damay dem bëri ji ndax man athlète laa. parce que man dama gis ñi nga xamante ni moo gëj dana engagé wu ñu ci bàyyi nee nañ amatuñu contrat ak moo gëj ndax moo gëj nee na mënatul yaa ngi ci biir contrat bi ba léegi. maa ngi ci biir contrat bi ba léegi man ñooñu di wax moo ñoo moo gëj la mais man contrat bi ma signé sama manager signé ko mu ngi fonctionné ba léegi. man sama bopp laa wax quoi. muy combat amagul date mais boo gisee benn adversaire. waaw ma benn bëri keneen ku ñëwee proposé proposé waat la ki nga xamante ni mooy Lac Rose mooy def. ma dem bëri ji. dama dem bëri ji. kon yaa ngi waajal yaa ngi waajal. maa maa ngi def li ma war a def. maa ngi def yi fi làmb. moo gën bëggoon na sama diggante Yékini Junior. parce que gars ba wax man ba wax ak Yékini Junior ku ñu war a bëre. combat moo woon a bëri Lac Rose moo nu maax kii la waaw comprendre waaw maax Yékini Junior maax moom ñoo woon a bëri bii bi am nii maax Lac Rose kon fi su su ma déggee wax ji mooy bu la beneen promoteur seetsee sa digganteeg euh, ki nga xamante ni Yékini Junior Yékini Junior waaw nga jëflante ma dem jëflanteeg moom ndax Yékini Junior ragal la heure bi woon a fekk ñu nekk si préparation combat comprendre dama Yékini Junior laa bëgg a bëre ñëw ñu bëre moom bu dee dama ragal mu wax ma xam fi may teg sama tànk waaw Yékini Junior de boobu ak léegi gisuñu ko moo ngi dem entraîné toog loolu boobu ba léegi kenn xamul dafa bàyyi làmp kenn xamul ci la la nekk mais ku la àndoon la Yékini Junior ak di mer gi mu jógee ci Tapha Tine ku la joxoon avance am nga jël ñoo bokk benn jour buñ bëree max moom dëgg sa diggante Boy Baol waaw bu ñëwoon tey day gën a neex man 100 pour cent Lebu laa ma delloo avance waxal ak moom Yékini Junior 100 pour cent Lebu laa Yékini Junior man ma delloo avance moom mooy delloo avance ma ne ko 18 millions fay ma 18 millions mu yàq combat bi barki maam Serafa. sa combat yow ak naa. Sa Thiès fi na ñëw non c'est que man nag tollootuma foo xam ne damay laaj mbër. non mais yéen ñëpp waaw mais na ñëw bu ko bëggee na ñëw man pare naa. Sa Thiès Yékini Junior non non waxuma waxuma Moussa Ndoye Moussa Ndoye. Moussa Ndoye yéen ñaar seen combat neex na. mu jël Sa mu bàyyi ma fi dem jëli Sa Sa Thiès ba mu daanu. waaw xam nga li ma la